intervenir sur la chaine des prix ba ñuy prix bi balaa ba produit bi balaa muy agsi consommateur final bi jar benn bépp bi loolu noonu bu amee ay loi ak ay règlement yu ko encadré ba loolu verrou yëpp mën a sute loolu di am léegi ñun li ñu jaaxal monsieur Dione mooy ci yenn dossiers yi dafa am bar muy wàll suuf bi foncier bi moom gaaw na teel nañoo arrêté fas yéene waa teg waa teg commission ad hoc pour mu lijjanti ko léegi nag lu jëm ci denrée yi quarante trois jours après euh, la mise sur pied de l'actuel pouvoir uh-huh. mënuñoo wàññi denrée kon foofu yéexte am na fa lu jëm ci institution yu mel ni promise xam nga structure bu mel ni promise nu mu gën a gaawee nee nañ leen yéen gaaw leen euh, ngeen euh, joxe seen taxañ seen bagage te dem. mais Ndeye Fatou pourquoi léegi yii di gaaw. Ndeye Fatou dafa am lu nga xam ne danga koy comparer te pour man c'est pas comparable. dinaa ñëw ci li ngay wax mais balaa moo koy fàttee ñëw ci appel à candidature pour man si wonee est de bonne foi mën nañu dëppoo ci ne dans le programme politique bi nga xam ne coalition Diomaye moom la campagne ba ñu fal ko ci il clairement dit certains postes la ñuy soumettre appel à candidature pour man loolu c'est du français c'est normal ñu ñëpp xam nañ ne certains postes bu ñu xool tous les postes xëy tey ñu def leneen mën nañu ne dañoo waroo certains postes lañ wax ba tey munoo may ma mais mais poste clé ba tey munoo ko définir yow sa xalaat ngay wax rek par rapport ak la mooy poste clé moo tax moo tax moo tax li régime bi li président lañ joxe instruction mooy ñu proposer ko un projet de décret sur les appels ak candidature pour man loolu moo jiitu pour man volonté politique am nañ ko moom laa wax sànq dañuy dem ci exécution et dans l' exécution faut mettre le cadre juridique et réglementaire tey bu fekkoon dem nañu ba jël un décret ne kat appel ak candidature lii lañ koy defee poste yi wala post clé yii wala direction yii nii wala yii nii lañuy defar appel ak candidature ñu liste ko def ko ne nii lañ koy def ak candidature nii lay demee commission bi lii la ñaata dossier la ñu recevoir in fine on va on va soumettre au préalable deux décrets. projet de décret pour lanceur d'alerte. waaw mais bien sûr dañ koy def. waaw dañ koy def moo tax ma ne am na yu gaaw am na yu yem daal. loolu tamit projet de décret bu ñu instauroon. Hmm. te da nga gis que ñu présenté loi lanceur d'alerte. bu hmm. jóg wala ñu ko assemblée gise ko. gisagoo loi bi moo tax may la loolu noonu bu ñu demee nag ba ñu teg le euh, le cadre juridique et réglementaire bu ñu ne post yii moom la ñu soumettre à candidature par appel à candidature lii mooy les conditions commission bi nii lay siéger lii lay retenir bu soumettre retenir deux ou trois jox président mu tànn bu ñu xasee ba teg loolu bu ñu ci dollee beneen bis le président de fal benn poste bu bokk ci yooyu di war soumettre candidature te jàll foofu ñu ne ko daa wax waxet wala daa dig yoon. mais tant que loolu amul et que dans le programme mosu ñoo wax ne tous les postes clés dañ koy soumettre appel de candidature tey mënoo bañ mu def loolu de mieux mieux la rupture moo permettreul tey moo amoon un régime bu fi nekk amoon ay un gouvernement amoon njor l'administration et d'autres direction nekk ci ko def nga bëgg pour un peu nga impulser sa nouvelle politique mais doo teg say nit ñu nga xam ne il sont aussi ou plus compétents nekk dans le projet épouser la vision du projet pour doxal loolu mais effectivement loolu moo tax tey ñu jël ay postes di nommer des postes de direction des Sénégalais

kon kon kon les nominations c' est pas arrimé à une question d' engagement ou ku bokkoon ci gën a xeex ku dem kaso non c' est arrimé à une question de compétence d' abord. il faut rappeler les compétence d' abord. compétence la. non mmh. compétence directeur général de la dem politique. mais ñu ñu fal ñëpp. émission avec Pape Alé Niang sur la 2STV. kan nga ma gis non ma ne la ma ne la gis nga euh, président Diomaye ak le président Ousmane Sonko. Mmh. lu nga xam ne mënoon nañ ko bañ a def ñu xëy def ko te jubluwuñ ci dara ku dul sàmm seen kàddu respecté seen engagement wan Sénégalais yi ñun ci liggéey la ñu war a jëm ci loolu la war a dox. bu ñëwee ñu ne ku nekkoon maire ñu fal la ministre démissionnel. bu ñu ñëwoon tey ñu jël ay Sénégal yoo xam ne mosuñu leen xam ci parti politique mosuñu leen xam ci engagement politique nommé leen à des postes de ministre nommé leen à des de direction loolu je pense bu ñu ko defee mënuñu jël l' aspect man maa nekkoon ci xeex bi mais naturellement naturellement il faut que ñu yëpp ñu conséquent que ne tey personne ne doit s'offusquer à ce que ñu jël un membre de Pastef de la coalition Diomaye Faye ko non li ñu war a offusquer mooy est-ce que celui-là il est il sont compétents pour que li ñu leen fal ñu mën koo ñu mën ñu mën koo doxal. maintenant pour revenir sur euh, sur. Euh, kon directeur euh, général port inspecteur impôt domaine mën na ko gérer. mais man mais directeur général investi impôt domaine mën na gérer lépp ci àdduna. même a ay ñëpp. lan nga non en fait lan non xam nga boo ma waxee loolu comme si tu veux me dire que ne non la gestion du port. la gestion du port. c'est pas une question de fiscalité pensant que l'inspecteur des impôts et domaines c'est quelqu'un qui ne connaît la fiscalité. Mhm. may laaj rek mais gérer direction question de management la ñan ñoo fi nekkoon ci port ah, ñoo nekkoon ci port bi xaw nga ñan ñoo fi nekkoon directeur port mhm. ban xam-xam lañ am ak lan lañ jàng on avait on avait Sadir qui était qui est ingénieur statisticien. statisticien. nekkoon ANSD. Mhm. nekkoon directeur port. est-ce que dañuy wax ne moom la woon yor port. ok wax ngeen ko. Oh, ah oui non ngeen ko ba mhm. bu nga xam ne jàpp nañ dafa sooxe ñu ne yorin bi su waxee la. Mhm. entre mën a yor dara. Mhm. ak ñu jox ko nga téye ko doxaloo ko ñaari mbir yi bokkul. Mohamed mën na compétent présente tous les tous les critères. délige pour ñu jox ko benn poste direction mu yor seen TV nekk directeur général mhm. ñu xam ne mën na ko am na jàng bi am na vécu am na diplôme bi mais suñu ko joxee dañ koy xaar ci yow résultat mhm. bu deful résultat yi dañ naan ko mën nga ko mais doxaloo ko normal dañ ko way dégg ko réew mi ko mhm. moo tax ñu njëkkee di ca keneen maintenant honorable tey mën na ñëw sol mbubbu opposant ah, défendre benn idée yi ah. bu subaa bu subaa comme il nous a toujours été habitué moom ni mu ñu habitué yëpp mooy ses position day dépendre de la position où lui il se trouve ou bien du bord politique où il se trouve. j'espère que dinañ déglu. ñaari mbir la introduction bi nga wax ci man. non ñaari mbir la non mais bien sa pertinence dama koy saluer. mais pertinence bi dafay arrimé wu ci boor bi nga féete. mais est-ce qu'il n'est pas aussi dans son oui il est dans son. de vous nekk ci pouvoir bi fi mu toll nii ñoo nekk ci opposition wax ñi ñu ñëpp profil yi baax na ah, léegi bi ñu teg ci bopp LONASE nag. médecin déet waay médecin docteur ah moom lañ jox LONASE mais mais mais lu tax lu tax nga jàpp ne. Hmm. médecin la. parce que mënul yor l'orange. damay laaj de man de waxaguma ne mën na wala. non xam nga non non non day faatu foog nga foog nga foog nga def une différence. Mhm. ce n'est pas que nit ki li mu jàng li mu jàng rek. loolu bu demee bañ koy jox poste de direction ci loolu képp la mën a nekk directeur non bu doon loolu la keneen du nekk feneen jox naa la exemple le l'ancien DG du port ingénieur statisticien la. ñu jox ko port. et moom sénégalais rek la nañ ko la 24 mars. non mais est-ce que xam nga Toussaint Manga lan ak lan la jàngaat lu dul lu dul lu dul lu dul lu dul médecine est-ce que yow xam nga moom lan ak lan la jàngaat lu médecine parce que gérer direction question de management la tey yow mën na nekk directeur général en tant que nekk. loolu la